عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق ما شاء الله لا اله الا الله برهان رسول الله رب برهان رسول الله

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظهر asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sant yàlla bu baax di ko gërëm ci ay mayam ci ñun di wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sant yàlla ci feeñ ak Mawlana Cheikh Tidiane ak ay tëbbam ak ay irsaadaatam sant yàlla feeñu waaye Mawlana Cheikh Ibrahim ci tarbiyaam ci maarifatoom ci ay déggam ci soog gi ñu soog ci yoon sant yàlla di alhamdulilah di sant sant yàlla ci sëriñ bi ma booleel ci yoon yàlla nga xam ne su ma sóobu ci yoon yàlla ak su ma oote ci yoon yàlla yàlla moo ko jaarale ci loxol góor bu tedd di kenn ci ñu tumuranke ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tumuranke ci mboolem asxaabu Cheikh Tidiane rawatina asxaabul fayda bi nga xam ne ci la bokk mooy Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu radiallahu anhu yal na ko yàlla gërëm lii ci barke yi ko yàlla defal ci la bokk ci barke yi yàlla defal sëriñ bi suñ jotaay bi ak jotaay yay ñëw ci kanam incha allah ak jotaay ya ci barke yàlla defal sëriñ boobu ma tudd nga xam ne bàyyi waxoon na faro farabtul qalbi seyqi umdatun qawiyatun wal istiqaamatun kabir laa yajiu an alfayda illa bi waasitatihi wa in kaana al awliyaa allah kulluhum haadiina muhtadiina ngeen baal ma dama xaw a euh, moo tax wax bi léeg-léeg du xaw a kii noonu bàyyi dafa wax mu ne nga takkee sa xol ànd ak sëriñ bi na fondement bu dëgër la xol la wax nag xol fondement bu dëgër la waaye njub lu màgg la na may gi ñuy wax faydu te mooy ay tëb yàlla bi yàlla wàcce ci xolu jaam ak rooxam jaam bi di am sibxu tawajjuh ilallah mooy ak dëggu ci jublu gi mu jublu yàlla loolu yëpp baatu faydu da koy yóbbu faydu dana firi maarifa dana firi ay anwaar dana firi lu nekk moo tax mag ñi ci seen mbind yi danañ koy jëfandikoo ci bunt bu nekk ay googu doo ko am lu may ci buntu sëriñ bi donte waliyu yàlla yi ñoom ñëpp ñu jub lañ waliyu ko jub rek la mën a doon te ay jubalaakoon lañ ndax seen yoon mooy woote ci yoonu yàlla yow ci buntu sëriñ boobu rek ngay amee may googu maa ngi sant yàlla yàlla defal na ma tew tawféex xol bu sell bu dëggu la àndee ak suma sëriñ moo tax duma ci faral di wut sax mbindeef léeg-léeg mu ko seede donte ay nit lañ nag dinañ def yëfi nit waaye yàlla moom moom xam na sëriñ bi it waliyu bu mët la te borom basiira la te borom kasfu la moom xam na xolu taalibeem bi xam na ruuxu taalibeem bi moo tax suñu dund incha allah lépp dafay bokk ci ay barkeem moom moom sëriñ boobu Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqib Ibrahim Niass ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi jàllale ay nuyoo di nuyu doomam ji fi teew di Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadul Aqibu al imam al alim di nit ku oyof nga xam ne mbokki taalibe ñoo ko invité man tamit ma ànd ci invité bi invité wu muy ñaari invitation te benn lañ maa ngi mbokki taalibe yi waaye li tax ma waxee noonu ñoom dañ ko xalaat man ma moo tax ma ma waxee noonu moom li ma njort te gën ko mooy moom teew na waaye teew na te te fekk dafa teew nit mën naa teew te fekk xolam teew nit mën naa teew ci barab te fekk xolum sax teew dafa teew nii rek waaye li ma njort moom teew na xolam teew na dama koy wax taalibe yi ma ko léeg ma gis nit sax ma maslaa ak moom xam naa ne kii sama noon la waaye comme wanuma ko duma ko wax dara ndax xam naa ne lor ak njëriñ ci yàlla rek la nekk waaye moom dafa teew ak jëmmam ba pare teew xam ne lii li barke baayam la yal na ko yàlla fay déplacement bi nga jógee Medina Baye ñëw fii bàyyi say itte yëpp te xam naa ne munoo dem géew yàlla bu ëpp géew bii géew boo dem rek day nuroog moom parce que fii ca toolu yàlla la toolu daawa la mu zaakar lañ fiy def ci yàlla alxuraan la zikar lañ fi def santaane yàlla la te ñaar yooyu amuñ majlis bu ko ëpp mën nga am nag majlis bu ko gën a taaru gën ko ëpp mbooloo wala gën ko ëpp alal waaye majlis la rek ci majlisu yàlla yi tabaraka wa taala kon boo teewee fii euh, dañ ciy bég dañ ciy kontaan nit la ku oyof waaye nit la ku mën a ku ku mën a jox nit orma ku am teggin la day waxtaan ak moom leen di waxtaan voilà nga yëg ne kii moom yëg na ne kii may waxtaanal nit la te pourtant li sëñ Cheikh Tidiane si di wax mu ne doomi sëriñ boo xam ne dangay ngay judd ñu lay sumil ñaari dàll di la sumil mbaxana nga dem ba màgg ci loolu mu ne kuy jëflanteel yow yaakaar nit ngay jëflanteel fekk dof ngay jëflanteel parce que dafay yaakaar na ne mbindeef fi yàlla da leen bind rek pour ay observer kaay alhamdulilah moom ci sëriñ yi fonk nit ñi ci la bokk moo tax ñun mënuñ lu may di ko delloo cër boobu rek ci wax bu baax ak jëf jëlanteeg moom ci lu baax di ko ñaanal yàlla di sàkku yi mu di di ñaanal yàlla comme ni suñ papa Cheikh Mouhamad Basir wax ko léegi ku óotu si ku mel ni cheikh mouhamadul aqibu ci ragal yàlla ci mbaax ci maqaama ci martaba ci sell yow am nga sas bu rëy rëy rëy loolu sànq Seydi Muhaadar wax na ko kon cheikh Baye yàlla na nga sut sëriñ bi fan Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu at yim dund ci kaw suuf muy quatre-vingt-deux ans yàlla na la yàlla may nga dund lu ko ëpp te dund ko ci bëgg-bëggam moom bëgg bëgg mooy alquran te ci loolu rek nga nekk foofu fekk moo ngi taqoog téere yàlla bi ni ko sëriñ bi taqoo woon ci di ko jàng di di ci sàkku ngërmaane yàlla ak di ko jubloo yàlla ak lépp lu góor yàlla di jubloo yàlla rek xam naa ne mu ngi ciy somm te loolu du ay wax yu mooy koy sànni nii ndax suñu waxtaan bëri waaye man yàlla daf maa bindee damay naw kuy jaamu yàlla bu ma la ko waxul sax da ngay am place ci sama xol bu ma xamee ni kii dafay jaamu yàlla rek man daanaka voilà moom sëriñ la waaye dafay jaamu yàlla yal na la yàlla fay kontaan nañ moom laa bëgg moom mooy tëj jotaay bi waaye eh, damay wax rek pour ndokkeel mbokki taalibe ak kilifa yi di nuyu suñ papa Cheikh Mouhamad Basir Thiam xam ngeen ni mel ci ñun daf ñuy taxaw. guddi ak bëccëg zahir ak baatin xaal buñ mën a nekk moo ngi ànd ak ñun jamaalan aw jalaalan waaw lum am ci lum am ci ñun rek mérito na lu ko ëpp maa leen koy seedeel lum am ci ñun mérito na lu ko ëpp ci mbaaxam ci ñun dégg moo tax xadara bii dañ ko fonk lool dañ ko fonk lool waxtaan wi mu fi def dafa méngoog jamono jii borom maarifa la borom baatin la mufassir la amul ci loxo nag macha allah lu ko të téere lum tumuranke tumuranke bu ko téyee bu ko liiree léegi léegi léegi léegi day mel ni téere bi tey la koy door a jàng léegi mu jàngal la ko jox la ci dars macha allah yàlla may ko ci luxal arabiya loo xam ne lu tumuranke la waaye li kullu maqaamin maqaal xaatibu naasa ala qadri oqolihim boo nekkee ci jamono boo xam ne léeg-léeg dafay wàcc nga wàcce niveau bi ba tolloog nit ñi léeg-léeg nga yéegal niveau bi ba tolloog mustawaawu ña dendal jaww ji loolu la laaj moo tax gis nga indi na waxtaan boo xam ne moo ngi jàngale tooguwaayu jigéen di jàngale tooguwaayu taalibe ak sëriñ lépp ba ñépp ñoo ngi kontaan jaww ji loolu la laaj te bu jaww ji laajoon leneen ci ngeen xam ne am na leneen ak leneen ak leneen kon yal nañu ko yàlla fayal lii mu fi jàngale jàngale ko ci arab ngir gunge gëstukat yi ñi nga xam ne dañuy def ay baaxsu sëriñ bi léegi rek moom dafa bëgg xam-xam cheikh Baye ibnu cheikh Mouhamadul moom mu ngi koy tooñ na ko nusxa bi laa soxla loolu tarangay borom xam-xam la bax su dafa métti toog nii rek di xaatir benn mawdon rek pour am ay addila yi ngi ci war a liggéey loolu ku xamul yoonu xam-xam da nga yaakaar lu lu yomb la loolu yombul te def na ko bi mu ñëwee mu ne ma sonn nga waaye xaaral ma jàng ko ma ne ko ma ne ko pampas darsu bi moom dafa oyof sax bii xóotul te ñi ko déglu xam nañ ne xóotalu ko xóotalu ko taalibe sëriñ dëgg-dëgg da koo wax rek ci niveau bi mu jàpp ne tolloo naag yaay yeeg mag yeeg bàjjen yeeg yëpp am na foo xam ne bu fa duggoon dañ naan kii ban làkk lay wax te fekk ne mënoon na ko tëggaat ci yeneen tolluwaay yu gën a xóot waaye alhamdulilah yal na ko yàlla fay mbaax ñoo ngi koy nuyu bu baax di ñaan yàlla liggéeyam yal na génn yal na yàlla génn sa liggéey jaami yàlla yaa ngi jëriñu bu baax ci yow ñii dañ koy wax ñi ñàkk koo wax waaye amul ku dul jëriñu ci sa jàngale waaw waaw ak xaritam suñ papa papa alaaji Cissé Cheikh Mass sànq kontaan naa bu baax ndax da leen leen présenté wàccuwaay boo xam ne dafa sedd ci sama xol ñi nga fi tudd ñëpp wàccuwaay bi nga leen wàcce kontaan naa ci ak ñi nga fàtte sax ñoom leen di jéggulu fii ku fi teew rek suñ soppee nga waaw na yàlla yàggal leen suñ kanam ah di nuyu muqaddam yëpp al imam Mouhamad Lamine Ndaw sànq jël na fi kàddu di kilifa di borom xam-xam comme ni ko Cheikh Mass waxee Cheikh Baye Mbaye mooy ex muqaddam Cheikh Ousmane Diak ak suma xarit Cheikh Aliou Diak ñoo ngi toog al amir docteur Abdoulaye Lam mu jiite jamaa Ibadu Rahman bu Sénégal yépp di borom xam-xam di sunni di ko oyof di suñ mbokk ci Saalum di suñ mbokk ci dëkkandoo di ku xam kër gi jàngee fa te yàqalu ko daara dama koy wax ne ko tey eh, su eh, maanaam waxaabit yi buñ amee wuteeg suufiyanke yow yaa leen di réglé yaa réglé problème bi ndax oyofam ah wallaay imaam mu ngi koy wax léegi nee na ko yow ci ñun nga bokk ñu ne ci yow lañ bokk vraiment dëgg-dëgg macha allah bi muy def dédicace ci benn livre bu mu bind moo nga tuddee ahkaamul agniya fil islaam bi ma egsee xam nga moom dafa mën a kaf sëriñu suufiyanka bi ñëw na nag ñëpp dégg nga macha allah nit ku yàlla teddal la waaw ñoo ngi lay ñaanal li nga jiite ci jamaa ibadu rahman école yi nga bëgg taxaw say masroat yi nga am yëpp teen yeeg école yeeg kulliyaat yeeg dégg nga taalif yeeg lépp loo ci bëgg a réaliser ci luy xëcc nit ñi jëmale leen ci njàngale yonante bi sallallahu alayhi wasallam yal na la ko yàlla yombal ak kuréel gi nga àndal yëpp suñ dëkkandoo bu baax la ku tedd la bu ma ko doon topp ni mu nekkee ñun dëgg-dëgg macha allah euh, allahuma laa duru ñoo ngi nuyu euh, Moussa la maire Moussa Fall député maire teew na fi ñoo ngi lay ndokkeel bu baax moom moo jiite maire Tivaouane Diacksao donc Moussa la maire commune bi gisaguñ ko mais monsieur Aline Bey xaw yónnee na fi wala dafa am ngànt mais moom suñu tonton la ndax su ma nijaay Abdourahmane mii moo su ma ñoo bokk ndey ak wëllëreem la dégg nga di suñ tonton bu baax waaye dafa bëgg jaamu yàlla du foo ko fekk moo ngi macha allah bureau moo ngi ci kaamilam di waqaaf moo ngi kurusam alxu maire beeg député gi yàqalu ko alxuraanam bi moom maire bu am mëdët la moom xam nga yàlla moom dafa am fulla loo jokkoog moom rek mu mu def ci yow dara moom maire la bu am mëdët waaw du meer kese kese yooyu nga xam ne dañuy tappalee nga def ay si facturation dégg nga ah, di jël marché yi di jël laxasoog yooyu moom maire la boo xam ne abdan lillahi la day toog ba yàgg rek ñëw na jaa ca kër ga ñëw wasifa si du ma du yëgal sax parce que suñ mbokk la ci yoon Tijaan Tiwaawan la aju ñëw toog bu ma ñëwee fekk mu toog ñu bokk wasifa macha allah bu ñu paree ñu ñaan mu mu dellu kon yal na yàlla dëgëral sa màndaa ci maire bii population bi la wóolu ci Tiwaawan jàmm gën yàlla jagsaaw yal na yal na la yàlla may ndam ci seen kanam ñoom it yàlla na seen xol sedd ci yow kontaan nañ ci sa ci ci ni ñu jàppee ak ni nga jàppee mbooloo ñoo ngi doon séentu monsieur le ministre Moustapha Sarré porte-parole di gouvernement Sénégal en plus ministre de la formation professionnelle ñëw na barki démb ziyaare si ma ba digoon nañu sax na ma dinaa waxtaan ak président de la république ak premier ministre incha allah pour ñëw représenter leen ci jotaay bi peut-être dafa am empêchement mais ku amoon éene teew la euh, maa ngi jàllale message boobu barki dem mu ñëw na ziar si ma parce que su ma wëllëre la te ku bëgg Sénégal la mais ku ku ku ku loyal la it ci àndam ak président de la république ak àndam ak premier ministre Ousmane Sonko parce que nit ku mu fonk ku mu fonk boo wéetee danga wax ki nga fonk di wax ki nga fonk ci kanamu nit yomb na mais fu wéetee moo ngi wane projet bi bien avant ñuy accéder au pouvoir projet bi lan la euh, qualité yi nekk ci dégg nga euh, premier ministre Ousmane Sonko boobu mooy dégg nga ba léegi mooy président Pastef nga xam ne kii ku fidèle la ku loyal la dégg nga envers leader am bi nga xam ne moo ko jiite. ba président ñëw tey nga xam ne léegi ñaar lañ munoo wax ci premier ministre bi te doo wax ci président bi nga xam ne moom moo ko jiital tey mu nekkaat président de la république Sénégal. vraiment euh, bëggoon naa mu ñëw ba ma témoin li nga xam ne xam naa ko ci dëggu gi nga xam ne ànd na ko ak ñooñu mais malheureusement mun naa moom ay empêchement mais kontaan nañ parce que barki démb rendre nañu visite boo xam ne yaatu na waxtaan nañ ci yu bëree bëri euh, yoo xam ne concerne na réew mi concerne na xadara bi fi ñu toog voilà am na ci détail yoo xam ne sax jarul dëggu mais euh, digoon nañu ne dana teew te wax nañu ne président de la république laay teewal te dinaa waxtaan ak moom ci jotaay bi alhamdulilah réew mii ñu koy jiite ñun ak ñoom ñoo bokk génération te ñoo ànd xeex bi ñoo bokk génération te ñoo ànd xeex bi moom la Pape doon junju léegi xam nga man ku mel ni Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu bu la yaree euh, léeg-léeg foofu dana am ay jeexital wala bu mag moo mel noonu yi wàcc yow man ko discret la boo ma dugg doo ma xam waaw ah, boo jaxasoowut ak man dëgg-dëgg danga may dooma xam dara euh, dégg ku discret la voilà voilà voilà waaye Sénégal gii nag xam nañ fi dara waaw ah, xam nañ fi dara hmm, hmm, xam nañ fi dara euh, sëriñ bi it moom xamoon na loolu waaw ah, waaw bu bu ñëwoon fii taalibe yu bëri yi may àndal ñu toog bu ñuy waxtaan léeg-léeg danañ dugg ci waxtaan yi parce que moom ñi mu dafay wax ak ñoom li muy noppi yëpp ci ñim miinut la wala ñim yarut waaye ñun ñi am sens mu yar ñu dafay wax ak ak ak ñi nañu loolu ci boppam radiyallahu anhu moo tax yooyu duñ ci sori waaye ñoo ngi ñaanal nguur gu bees gi yoon bii ñu jël yal na leen yàlla may ndam politique ma nag mais sañ nañ leen ñaanal rawatina ñun dañoo ànd ak ñoom loolu dañ koy assumer dañoo ànd ak ñoom daj ci lu ne comme ni ci keneen dajee lu ne Sénégal yëpp ci daj lu ne emprisonné nañ ci samay taalibe fa mu gën a méttee ña yor dossier yi ñooñu laay dem seeti te nëbbuma leen na sama taalibe yi waa Pastef te boobu moment boobu am na ñoo xam ne dañuy daw waxuma sax ay procureur mais ay policier sax la ñuy daw ak ay gendarme ñun bureau procureur dañuy fëgg ñu naan ñu dafa jàpp ak xaar leen ak nangam buñ toogee juge bi xamal ko na ko ñii nga jàpp waa Pastef lañ te ñu nit leen dafa am foo xam ne boo fa tolloo ci yàlla dootoo ragal lu dul yàlla doo tooñ nag mais da am xel nag logique bi nit yàlla demee da ngay yaakaar sax dafa xamul dara fekk déedéet dafa am fu mu toll foo xam ne un plus un égale deux xam nañ ko de maanaam xel li muy xalaat waaye am na naanuwaay yoo xam ne boo ci tolloo léeg-léeg am na neneen nooy doxe nu bokkut ak ni nit ña kon ñoo ngi ñaanal nguur gi bu baax yàlla dimbali leen ba Sénégal tegu ci yoonu njub Sénégal tegu ci nataange yàlla mun na ko yàlla na ko def ñeneen nit ñeneen lañ gëm de am na ñeneen ñu gëm ñeneen citoyen bu ne libre nga ci say pensée libre nga ci sa gis-gis loolu citoyen bu ne libre nga ci <laughs> waaye ñun tamit libre nañ ci suñuy pensée libre nañ ci suñuy gis-gis te ñaari ku xaw a dëgër bopp laa nag dégg nga moom moom man samay principe moom dara mënuma cee dindi loo may convaincre na nekk xam-xam ak dëgg boo doon jël asamaan ak suuf di ma ko nappee wala di ma ko ti dama lay reere damay xam ne yow da ngaa yëgul li xew kon ñoo ngi sant yàlla ci loolu loolu maa ngi koy wax responsable Pastef yi fi teew ak autorité yi fi teew yëpp li jëm nag ci mbokki taalibe yi sëriñ bi waxtaanal na leen jotaay bi 20 jours ci ngeen ko organise maa ngi remercier ñëpp ci turu Cheikh Mass marhaban yaa imam Tafsir Thiam ci turu al imam Mansour Diop ci turu président Amadou Anne ci turu Cheikh Mor Thiam Jamaalu Diin moom moo nekk Liberté 6 moo nekkal xadara bi foofu ci turu Cheikh Mor Gueye Taqiyullah moom moo amee li ko daggee Castor Yaraax jàpp ba côté Almadi lépp lu aju foofu moom lañ ko dénk ci turu Cheikh Baye Congaan mi nga xam ne mbuur la jógee ci turu ñiñ taqdimal yëpp bàyyi Cheikh Oustaz kër Gueye Kaolack dégg nga Cheikh Baye Ndiaye Kaolack ak taalibe yi ak soppe yi nekk à l'étranger soppe yaa ngi fu ne ñoo ngi France ñoo ngi Italie ñoo ngi Angleterre ñoo ngi Espagne ñoo ngi États-Unis d'Amérique foo dem rek ci dëkk yooyu dañ fa fekk suñuy àndandoor ci yàlla ak suñuy sot fii ci Sénégal it administration bi suñuy nit kese ñoo ci nekk mos naa ko wax sëriñ bi bi ma mujjee seet si fii su néeg am na ku ko seede benn doomam moo ngi toog ñu am yu bëri yu ñu wax ma ne ko sëriñ bi ci sa barke fii ci sa barke njaboot gi ñoo ngi fu ne ci biir réew mi parce que vingt trois vingt deux ans du benn bës daayira bi vingt deux ans la am daayira boo xam ne vingt deux ans ñu ci nekkoon ay étudiants war nga xam ne ñooñu ay cadre lañ léegi vingt deux ans keroog nag mu wax mu bégal ma sax am na ci yoo xam ne du waxi jotaay bi waaye yéena ko moom dafa maa wax mu ne ma yàlla mooy maye yàlla may na la te may googu kenn mënu ko yàq wallahi moo ma ko wax mu a ma mu teg ci mu ne ma te sa mbooloo kenn mënu ko yàq après teg na ci yeneen wax ñëw gii ma la seet si am na ñu buggoon a ñëw sax waaye dama leen tere yooyu ay yeneen i wax la parce que moom moo ma yàq xam na ma waaw xam na ma waaye loolu rek ma wax ko ci waaw waaw mu a ma yàlla mooy maye te yàlla may na la kenn mënta yàq may googu oote bii moom moo ma ko jox waaw waliw bu yam noonu ci basiraam ak kastoom ba may nekk ndaw mu ne ma yow lii mooy sa mbir war naa toog ba léegi benn waaye di ma ñàkkal fayda wala di yaakaar na man benn ñoxor xopp laa noonu mu may teree nelaw xanaa boobu boobu damaa xamul ah xanaa dafa am loo xam ne moom xam na ko man xam naa ko ci wàllu yàlla mu ne ma yow oote ci yàlla mooy sa mbir ooteel ci yàlla dañ la wuyu loolu moo ma ko wax daan na ma wax mu ne ma yow bul jàpp sa bopp ci xale yi de kilifa nga daan na ma ko wax daan na ma wax yow bul fo bokkoo ci ñiy fo moo ma ko wax maanaam tarbiyo naa ko cinq ans sept mois yoo xamante ne mu may door a yabal fii li ma ci jëlee ci yoo xam ne léeg-léeg daf may concerné du benn wax du ñaari wax kon ku yebu nangul ma rek waaw boo ko deful rek da nga ci am gàcc wallahi azim ku yebu sa xol nga nangu ni ma yàlla def rek boo ko nanguwut danga dund fii ci àdduna te da yàlla dina la mere te te bàyyi dina la mere sëriñ bi dina la mere Cheikh Ousmane dina la mere ndax man xam naa ne jubóo naa ak ñoom naa ne jubóo ak ñoom loolu moo tax suñ jamono jii nag àndoo tappale dafa am àndoo pexe àndoo jayante su ma fonkee diw danaa am bës dana ma yëkkati diw bu ma tegee loxo diw bu ma meree ma yàqu diw bu kontaanee ci man diw su ma ko addiyaalee dana ma xamalee kilifa yi après lan la lan la xanaa déggoo Baye Niass mu ne la wutal ngërmaane yàlla ah mu ne jigéen ju bàyyi àq yàlla bu la jëkkër gërëmee zéro taalibe bu bàyyi àq yàlla bu la sëriñ gërëmee zéro doom ju bàyyi àq yàlla bu la waajur gërëmee zéro waaw yow nga jël yàlla ñàkkal ko fayda ba pare léegi nañ ñii moom nañ la gërëm nga am dara ñooñu nañ la gërëm nga xool nañ la gërëm yooyu du dara ay caaxaan la man lu ma ne lu sincère la li ma loo gis may def lu sincère lu ma lu ma lu ma du def rek dama ci maanu du ma gëm noonu la ma yàlla bindee loo gis may def rek wala ma koy wax rek bu la neexee teg ci loxo xataa bu ma juumee sax loolu laa gëm bi may wax loolu gannaaw kay xanaa nga may xamal ne sëñ bi da ngaa juum fii waaye loolu laa gëm bi may wax yàlla nag noonu mooy sama tabia noonu la ma bindee yàlla nag kullun mu yassuru li maa xuliqa lahu yonent bi nee na yàlla ku ne yàlla da bindee ni mu la yombal hmm. nit ñi nag dama déglu benn waaye ci internet bi waa ji sax ci yeneen wax la doon mu ne Sénégal boo amee ci yoonu toroxtaange ñëpp lay bëgg parce que dañoo xam ne doo tekki dara buy góor buy jigéen mu ne waaye boo awee nag ci yoonu nekk ndaw am teggin di jàng fonk sa diine fonk say waajur fonk say sëriñ fonk nit ñi baax ñëpp lay noonu parce que dañ naan kii moom dana dooni dara nit ñi daal maanaam daal ku am fulla ku bëgg lu baax lañu bañ voilà yenn yi man damay xool nit ñi ba yàgg sax dañuy léeg ñeen ñenn ñi seen comportement dañuy mel ni ci man ay xale ñoom xale laa ci ñoom mais man dama leen di jàpp comme ay xale yuy fodal yenn comportement yi ci daawa bi dama koy xool ba yàgg ay xulaam laa leen di jàppee xulaam mooy ay xale ci arab ay enfance affaire enfantillage la ñuy def voilà faydu li ko tax a jug mooy delloo iman wala hikmatu fi zuhuri haazil fayda loolu la bàyyi wax lii hikma ci feeñal faydu bi fi haazal zaman al fasid ci jamono bu yàqu bi deful iman fi kasrati qulubi nas mun a néewat ngëm yàlla ci xolu mbindeefi fa haadihi l ummatu ummatu l marhum fa ufidat ilayhim al maarifa wal xaqaayiq li kay yarjoo li asli fitrati l imani fafham loolu la bàyyi wax ci kaasif mun a faydu bii néew ngëm yàlla dafa tasaaroo ci xeetu yonent bi te xeet bi yàlla da leen a yërëm mu ne yàlla feeñal fayda bi ngir delloowaat leen ci sell ak cosaan da xam ne euh, moom lañ amee woon ca kullu mawludun yulud alal fitrati hadis boobu faydu moo mën a delloowaat nit ci iman boobu te yonent sallallahu def wasallam ne iman dégg nga juróom-ñaar fukki xaaj la mu ne ba ca gën a kawe mooy laa ilaha illallah ba suufe mooy imatatul azza anit tariq nga dindi lor ci yoon kon buñ toppoon di wax xaaju imaan yi dégg nga te imaan googu buñ bëggee wërsëg sax dégg nga moom ci imaan walaw ahlul quran amanu la fataxna alayhim barakaat min alsamawati wal ard gis nga foofu pour ñu jot barke asamaan ak suuf sax yàlla def ne waa dëkk bi yéen waa Màkka bu ngeen gëmee boo toppee iman wa man fa zalika faqad faaza fawzan aziman mënta ñàkk ngeen bëri lu ngeen teew ci man ci li ëpp ci seeni waxtu ndax ngeen jël ci tegginu soobu jëm ci yàlla comme ni ngeen jël see woon jas bi al adab ma allah mooy nga kennal yàlla ca kennam ka zahiran wa baatinan bi nga amee fanaaw ci yàlla imaan la la jëriñ bàyyi tontu na ko seexaani ca ca ca jaare saari ñi ma tudd ñëpp na ma egg nañ am nañ wusul yaa ngi may bégal dollee ko imaan ci xeetu yonent bi nga kennal yàlla ca kennam ka zikkar bi yonent bi jàngale ne moo gën a foor ci zikkar si sax firi laa ilaha illa wax wahdahu laa sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in xoolal foofu rek bi nga bàkkee yàlla kon tegginu jaam bi ak yàlla mooy nga kennal ko tegginu jaam bi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga kennal ko ci anbiyaaw yi bàyyi mu ne ngëneelu yonant bi ci ci yeneen anbiyaaw yi yàlla danaan Moussa sa xeet na yonent bi li kaafatali naas bàyyi def na ci waxtaan Oussa Bara mu ne dafa am ñu nekkoon Mauritanie naan yonent bi gënul ñeneen ñi bàyyi mu ne dof yi bu ma leen seetaanee dana yàq àdduna bi xaaral ma def ci benn mbind waaye loolu taxuñoo jóg waaye jàngkat yaa ngi nii kilifa yaa ngi nii xam nañ bu baax li may bëgg a junj dégg nga afdaliyatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fawqiyatoom ci ci anbiya yeeg mursaluna yi bàyyi indi na ca lay yu bëree bëree bëri ci alquran ak ci sunna radiyallahu anhu nga kennal yonent bi waaye nga topp sunnaam waaye nga kennal ko ci xaqiqam bi boo defee suluk ba xam xaqiqam bi nga kennal ko foofu waaye kennal ko it ci zaahiram cheikh kazaaka cheikh Tidiane tamit kazaaka cheikh Ibrahim kon ni ngeen jël see woon jas loolu nag kilifa yi dañu ciy dimbale ku mel ni sëriñ bi Cheikh baay moom waxtaankat la borom xam-xam la waaw du sëriñ yooyu toog noonu noonu rek di def faatee ñetti salaatul faatee dégg borom xam-xam la bu wàcc ci géew bi di di yare di jàngale di waxtaan ci yàlla ak suñ papa Cheikh Basir ak suñ papa Alaaji ak imam Lamine Cheikh Ousmane ak Cheikh Ousmane Konte ak Tijaani ñii ñëpp ay duwaatkat lañ ay borom xam-xam lañ yoo xam ne fuñ toog danañ fa jàngale njàngale moo xam ne xel dana ko mën a nangu loolu te doo tudd kenn nag waaye da nga samp loo xam ne. ku bëgg a gàggantiku dana dem xool lee xool leneen li nuróowu teg waxi bàyyi xool li nuróo dëgg après na nga bàyyi jaam yi seen borom loolu penc mii ñuy dund di woote ci yàlla ci tijaan ya jamono ji da koo laaj wax ji bëri na lu rot ci sa xel mi nga defar ko ne sa maari fa bopp la indil ñu problème yoo xamante ne kenn xamul problème bu dem ba sedd ba nga yaakaar ne bii moom dana rees beneen ñëwaat te lépp ci wax ay lay bu la lay bawoo il est temps kilifa yi Serigne Mbaye am nga ci wàll Cheikh Baye Mbaye Cheikh Babacar ngeen gën a yaatal yéen a ngi ci sax waaye suñu responsabilité la ñun ñëpp ci ñu défendre jàngale Cheikh Ibrahima ak oote Cheikh ma waaye def ko ngir yàlla waaye def ko ngir suñ jaayante Cheikh Ibrahima ndax Cheikh Ibrahima dañoo jaayante moom tey ëllëg te bañ cee xaar kenn nag suñ dëgg ak baay kilifa gu ñu ci ñaanal nag ñu bénéfice wu kilifa ñaanu nit ku baax kilifa gu ñu ci wax jaajëf. ñu bénéfice u jaajëfu nit ku baax yooyu soxla nañ koy nag waaye na fekk suñ xol yi Cheikh Ibrahima rek la ñuy la ñuy la ñuy topp dama mos a gént Cheikh Aqibu bi ko bi ma ko géntee ci gént gi ma wàccu ba mu ngi dund bi ma wàccoo su ma bi ñuy tuddee maam Asu Jànka ma ma gis boo ma nekk xale yaayam mu ko boot mu jox ma mbootu ma fomp ci ba pare rek ma gis sëriñ bi taxaw mu ne ma kaay mu ngi ci benn nit ma ñëw nuyu ko fekk Baye moo ngi toog nii sëriñ bi moo ngi toog ci wetu Baye te boobu moo ngi màggat ba jaaw ni Baye moo ngi toog ferenkulaa ci kaw lal bi mu ne ma nuyul Baye ma nuyu Baye toogaat ci ginnaawam bi ma toogee maa ngi xool Baye moom moo ngi wax ak Baye nag dégguma li ñuy wax ma wax ci suma xel mi maam Baye bu ma laajee yow loo may xoolee nii lan laa koy tontu ci gént gi ma wax loolu ba pare sëriñ bi wax ak Baye ba pare mu ne ma tàllal Baye ñaan ma tàllal Baye ñaan ñu génn. ba ma yeewoon nag man am naa sama sama dégg-dégg bopp wallaahu axlamu hmm. allah yaxlamu man xalaqa yàlla xam lim bind ci ay gént yàlla xam lim bind ci ay mbinde man damaa gént rek na sëriñ bi dafa maa yóbbu ba ci bàyyi hmm. maanaam sama sëyru la ma yóbbu ba ci bàyyi dégg man loolu laa ko dégg hmm. xaw ma nag ndax noonu la am suñ benn papa maa moom ñoo jàppandoo ci sëriñ bi mook ñoo maase mook sama papa ñoo bokk bàyyi euh, damaa gént bàyyi moo ngi ñu ne kuusi moo ngi maa ngi toog nii ci wetu baay moom moo ngi toog ne am ay naar yuy gor garab di ko goral baay baay jël benn doom papaaya jox euh, jox ko lekk jox ko bi mu joxee sëñ daa sëñ lekk mu jël doom bi jox ma ko bi mu ma ko joxee ma ma wax baay na ko kii xam nga lu tax mu jox ma ko man maay buntam ci yow moo tax baay daal di muñ ree bi ma yeewoo ma woo sëñ daa yónnee ko seen na ko demal jënd papaay démb sa papaay bi la bàyyi jox maa ko lekk kon donc Mawlana Cheikh Ibrahima dafa jege taalibeem yépp dafa jege taalibeem yëpp te ku nekk fii rek yaa ngi am ay mashhad yoo xam ne yu yu xóot dafa am bés coow li bëri torop ma gént ko bàyyi wan ma benn nag bu xonk mu ne ma saraxel nag bi jëndal nag bi nga saraxe ko ma yónni benn taale bu nekk France na ko wutal ma nag bu xonk bàyyi laa gis béng mu ne ma demal jënd nag bi 2014 kooku bàyyi nañu kooku bàyyi nañu mu ne ma nag bii jënd ko nga saraxal kooku bàyyi nañu waaw ah, alors bu defee benn waay boo xam ne dañ koo désinformé mooy ko amatul information xam nga am na ci gars yi yàlla ñoo xam ne jotatuñ benn xibaar seen seen basiira bënn ñooñu ñooñu buñ lay xuppa ka ñàkkal fayda da ngay reer waliw bu ñuy informé ak waliw bu ñu désinformé bokkuñ bokkuñ naan waay <laughs> bokkuñ naan waay loolu nag yéen taalibe yi yéen a ko moom ziyaare bi du du du du du du defante de 2006 lañ ko sos at bu jot bu ngeen ma ñaanee génn ko ma bañ boobu sëriñ bi moom ci kaw suuf suñ ma ziyaaree ba pare rek ma ñaat dërëm duma ko lekk ci liñ may indil lu may laaya ngi nii laay suma taalibe la mm-hmm. tuddee ma doom tuddee tawam cheikh bi ñu ñu maasee ñu yaroondoo ah moom laay jox suma addiyee ba mu dem ci sëriñ bi ba sëriñ bi jot ko ba pare ma door a nag ñemee naan attaaya ci li ma gars yi eh, laaya biir tuuti comme ay ndonga daal lañ te Pabas wax na ko sànq nee na taalibe loo baax baax baax dégg nga biñ ciy waxtaan ma ne ah wax naa ko laay mën na ko jëmmi sëriñ bi de ci saa yi nekku fi waaye addiyee jooju nag ma ko yóbbul ci suma sang ya ñu nga seet taal bi di wax mënu ma lii boobu man maanaam waxuma man mënu ma de dañ doon waxtaan day waxtaan rek ñun bu ñuy doxal ma ne ko ah sëñ bi yi moom liñ sas taalibe yi jamono ji daa métti de mënu ma tee déedéet bul wax loolu loolu ah, bi may nekk moom dafa dafa dafa fonk barke waaw moo tax benn taal sax damaa wax damay dégg yow nga affaire barke maanaam barke dañ koy jënd barke dañ koy jënd tappale du ko maye du lu sëriñ di may taalibe du lu sëriñ di may doom du lu jëkkër di may jabar du du dégg nga da nga koy wut ak xol bu sell ak dëgg yombatul nag ndax daara ju daara ju màggat daara ju màggat taalibe yu màggat yi dañuy empêcher taalibe yu bees yi dañuy yàq seen liggéey yi foo ma loolu leen tuuti nag parce que tooyaa bi yàgg daara ju yàgg taalibe yi nga xam ne mënatuñoo dem nga xam ne dem duñ bàyyi ku dem duñ fa nekkee lu may rësal pas-pasu taalibe yu bees yi ak di leen dugal ci yu kenn xamul loolu taalibe yu bees yi war nañ koo moytu ci bépp kër sëriñ nag barke dañ koy wut te boo àndee sëriñ na sa xol bi sell nga wàccee sa bopp yàlla te nag na wut yàlla nag moo la boole sëriñ bi fekk nag yàlla ngay ut moo la sëriñ maa ngi bëgg a guddal maa ngi tëjee benn aaya rek jox sëriñ bi bàyyi ba fa waxoon Baraam Diop radiyallahu anhu suñ sëriñ bu wax boobu ba muy def baxsu bàyyi yebal ko ci sëriñ Aliou Oustaz Baraam moo ko nettali ci mbiri ziar mun a bàyyi def na ko bul fàtte laaya ji ci soorti nisaay dégg nga wala wa annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahim bàyyi mu ne xoolal laaya ji yàlla moo ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallam sa àndandoor yii buñ demee ba tooñ seen bopp nañ la dikkal jéggalu yàlla yow nga jéggalul leen yàlla yow ndawal yàlla danañ fekk yàlla muy jéggalaakoon di yërëmaakoon tooñ sa bopp nag maanaa yu bëri la tooñ sa bopp ci bàkkaar sa diggal sa borom tooñ sa bopp ci àq yoo amee nit ñi tooñ sa bopp ci xaflatu sàggan goo am sa diggal sa yàlla ci sa xol ak sa xel waaye tooñ sa bopp sax ci jamono nim tëddoo nga gàtt jaaxle jotaay jotaay ka mu kaafara la jotaay yuy dindi stress la jotaay yi wàllante xaal la rijaalullaa yi fi nekk wàll leen xaal ñaanal leen yàlla xoolante bi yépp ku ci ñibbi dañoo yóbbaale yoo xam ne munoo ko woon góobee lu may ci jotaay yi bàyyi nag mu ne jëmmi yonent bi ci zaahir dem na mu ne waaye mbóot ma abu Aboubacar ñëw toog mbóot ma moom moom fa Omar toog mbóot maa fa Ousmane toog mbóot maa fa Alioune toog moom fa bàyyi mu ne ba ci sëriñ si mag si Seydou Xaadir Seexu Tijaani mu ne ba ci jamono jii may waxal ak yéen yaakaar naa ñi may waxal am na dégg loolu la ca bàyyi teg te bàyyi moo ne a cheikh a cheikh fi qawmihi kal nabi fi ummatihi sëriñ ci xeetam dafa mel ni ab yonant ci aw aw aw ummaam sëriñ mooy ku ootu yàlla ci jaam bi ootu yonant ci jaam bi ootu wël ci Cheikh jaam bi ootu Cheikh Ibrahima ci jaam bi yow nga effacé wu nag yow kay waroo baare ñooñu sa yaar ci ñooñu mooy nga fexe kooku nekk taalibi bu dëggu ci ñooñu dund seen jàngale loolu ñun mooy suñu liggéey sëriñ sa bàyyi loolu la ñu jàngaloon dama liggéeyal yàlla fi sabili daa bul propagande kenn lii ma la sant soo ko defee yàlla dina la teral te adduna bi yëpp dañ la fi baat boobu la moo waxoon te dégg te loolu dafa am seede te wax na ma yi nag yu bëree bëri te lépp yiw la lépp lu baax la lépp luy encouragé ndaw loo am yaakaar ci mu liggéey yàlla ndaw loo lépp lu ma mës a takk ci moom ci waxam ci ñaan lépp dégg nga te xaal bu ñu mën a nekk rek moo ngi ànd ak man at yu mujj yi nga xam ne fenkat yeeg soskat yeeg jaxasekat yi léeg dañuy dem danañ may jaxaseeg moom wala dañuy fenal sama taalibe boobu da ngay wax ba pare nga yaakaar yow li nga wax moom yow da lay topp sa waxi caaxaan yooyu boo paree ba pare mu bàyyi la ak say wax jàppale yow ni mu la jàppee moom xolam bi xam na taalibe bi li muy def ak moom xam na ko moom xam na moo tax waliw bu mag léeg-léeg day sonn sax day sonn ñun xam ne moo tax ba pencam yàlla mooy sama sëriñ ba pencam yàlla sëriñ boobu mooy sama sëriñ waaw te xadara bi ñii buñ ko waajoon ñetti weer fii lañ ko doon baasal fii bayaal bii junniy 16 ak yu teg lañ doon luye mais maa leen wax luye leen 516 ay at defuñ jotaay te lii ci dans 20 jours ci ngeen ko organiser def leen rek lu yam taalibe yi nga xamante ne dañuy nelaw mbàjj mi yeewu yeewaguñ leen bu ngeen leen yee ba pare ngeen ngeen ngeen door ko yaatal waaw kon nag yéen jëwriñu daayira bi xadara bi muqaddam yi responsable yi na ngeen yokkaat effort yi yokkaat njàng mi yokkaat tarbiya bi yokkaat xitma yi lépp ñeel yàlla lépp ñeel faydu Cheikh Ibrahim lépp ñeel lislaam loolu mooy sama oote loolu la ma sama seriñ sant ci loolu rek ci laa ne wax ci sëriñ